ci confronté wu très souvent mooy le foncier euh, souvent on y cite les maires Thiès maa ngi wax avant ñu émission bi fan yi moom yéen yéen ay avec l'affaire Bourkat mu doon mu doon lu lu lu doy waar. non euh, jërëjëf Mamadou Awa cette question là dama waxoon sax ni man dootuma ci waxati. Mhm. parce que à force d'en parler c'est comme si da nga am lenn loo ci ci quoi mais mooy li ma wax sànq ma ni mhm. maire yi dañu amul bàjjan amuñu nijaay <laughs> comme mun gars yi mënuñu attaqué waa administration centrale mënuñu attaqué administration territoriale maire yi nga xam ne dañuy dem politique ñoo nekk ci biir askan wi ñoo gën a yomb a attaqué ñoom la adversaire politique yi di profité à la moindre occasion pour les attaquer. Mmh. qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire Mbourkat Mbourkat ba mu commencé ba léegi ba coow li commencé maire yi ñoo ci nekk di. ku waxal yàlla Thiès xam ni maire yi ñoo ci nekk di wax et ça n'a pas commencé aujourd'hui man ku ma xam Thiès xam ni j'ai pas attendu d'être maire pour di prononcer wu sur les questions qui intéressent les Thiessois mm-hmm. depuis toujours je toujours fait du dañ ko def pour soxor wala pour attaquer ñenn wala soxore leen parce que malgré tout ce qui qui a été dans cette affaire là président ñun dañoo jekki-jekki président wooñu moom dafay ñëw mbuurkat bu sañoon ñun ñu gunge ko sur le site de Mbourkat mhm. mais bëggu ci benn tintamarre bëggul ay militants yu ko ak yii il veut le faire de manière discrète ànd ak ñun ñu dem ci ak les service concernés mhm. ñu dem sur le site pour que bu ko neexoon mu toog bureau information bu mu soxla dina ko am mais pour le symbole dafa bëggoon a wane question bi ñor na ko mhm. et c'était pas la première fois que président di wax ci affaire Mbourkat quand il est lors de la campagne à Thiès oui. il était 6 heures du matin ñun ñoo dem buntu Stade Lat Dior jëli ko on a discuté bi ñu ñëw euh, promenade de Thiès waa muy def discours il était 6 heures du matin une seule question ci la wax muy mbuurkat mu ni est-ce yéen waa Thiès bëgg ngeen seen terrain yi jël mbuurkat ñu delloo leen ko gaa yëpp donc il avait beaucoup d'informations avant même d'être bien sûr il avait des informations comme quoi une grande partie des terres de mbuurkat ont été partagées entre des donc bi mu ñëwee dañuy est-ce que bëgg ngeen ñu delloo leen seeni i terrain. Mm-hmm. Thiès ñëpp yuuxu ni way mu ni fal leen ma. c'était pas une promesse de campagne mais mm-hmm. un engagement. et bi mu faloo engagement boobu la bëggoon a ñëw wane ni moom dafa respecter engagement donc il nous a ñun te ñun dañ doon insister à travers le maire Birame Souleye Diop. Mm-hmm. qui en son temps était dans l'opposition mais était dans le président du groupe parlementaire. bu yeewi askan wi. ñun les maires de Thiès dañu les mardis. donc ñu ni ko boo demee assemblée il faut faire une question écrite nga laaj le ministre des finances nga ni ko mburkaat ni ñu ko séddalee nan la parce que nous n'avons pas été impliqués du tout les maires de Thiès n'ont pas été impliqués au début ci processus bi nga xamante ni moo aboutir au partage des terrains mm -hmm. contrairement à ce que d'aucuns voudraient faire croire bi président ñëwee gisal boppam am na document yu président yoroon yoo xam ne sax man très sincèrement keroog bi président ñëwee Thiès c'était la première fois ma gis document yooyu ci laay soog a gis nag ni ñu séddalee gis naa ay nit yu bëri yuñ ci am ay terrain ñoo xam ne suñuy frère lañ ay Thiessois lañ. Hmm. yuñ jox ay ay hectares ak ay hectares. parce que information ngeen ci am ñun amuñu ko ci ñu nekk ci biti mais y a des noms qui qui sont qui sont cités. waaw le document que détenait le président. président document bi mu yoroon. Mm-hmm. tur yooyu yëpp ñu ngi ci ak ku nekk nombre d'hectares bi ñu la jox. am na ñeneen ñoo xam ni ils n'ont rien à voir avec te ñooñu ñoo gën a bëri. Hmm. des personnes qui habitent à plus de 400 kilomètres de Thiès te ñoom ñoo ci gën a bëri le ci non frère Thiès waa yi ñu jox sax liñ ay hectares hectares yi ñu leen ci jox taxu koo bëri trop. Hmm, hmm, mais ñi nekkul dëkkul Thiès. jotewuñu ak Thiès dara lañ leen ci jox looloo gën a bëri. mais dans cette affaire là aussi man souvent damay invité gars yi ñu def attention. parce que am na des chefs d' entreprise qui ont des projets. yoo xamante ni mën na amal ñun li ñu doon dénoncé nag kay mooy ñi nga xamante ni c'est des particuliers mhm. yoo xamante nii bi présent teewee mais les autorités des du cadastre et des impôts expliqué dañ leen di jox ay ilo dañuy ñëw ñu ni diw jox nañ ko 4 hectares Mbourkaan ni ñu ko lotissé un hectare c'est cinquante terrains waaw yow nga xool am na ñoo xam ne dañ koy jaay mhm. dañuy jaay jaay jaay ñi ñu jaay bu ñu ñëwee dañuy un hectare c'est combien de terrains 450 terrains c'est énorme ça quatre cent cinquante terrain ñoom la ñuy jël ci ni ñu foofu. Mhm. terrain yi dimension yi mu yor. loolu léegi li ngeen dénoncé. les techniciens boobu loolu mhm. ni ñun dañu bëggoon ñu def un Thiessois mhm. nit ñi am fu ñu dëkk. parce que man en tant que maire su ma sañoon mais damay am suuf su bëri. bu Mamadou Awa ñëwee ni dafa bëgg a tabax Thiès bind demander parce que li nekk sama bureau ci ay demande pour terrain kenn xamul nu toll. bu Mamadou Awa ñëwee bind ni monsieur le maire dama bëgg fu ma tabax ñu jox ko ëllëg bu fa dëkkee ak doomam bu ma fi nekkatul mu ni ah maître Ousmane Diagne bi mu fi mm-hmm. nekkee maire kat moo ñu ma joxoon suuf ma tabax fi ma dëkk mm-hmm. bu sëriñu daara ñëwee ni dafa bëgg fu mu def daara ñu jox ko bu association ñëwee ni dañu bëgg fu ñu def institut islamique ñu mën ko jox mm-hmm. ñun nga xamante ni nii on a des projet à Thiès délocalisation forêt municipale bi délocalisation délocalisation hippodrome bi pour mën a def foofu stade multifonctionnel un parking de gros porteurs pour que camions yi ni ñu nekk ci mbeddu Thiès yi dootuñu dugg biir Thiès on avait tous une zone industrielle on avait tous ces projets là mais on n'a pas été associé du tout ce qui s'est passé par rapport qui est à l'origine de tout ça l'ancien régime non c'est l'ancien régime et je dois à la vérité bu mu nee l'ancien euh, régime étatique bi la wala régime municipal bi non non non la municipal les municipalités n'ont absolument rien à voir non encore une fois. maanaam li ma li ma bëgg a leerlu mooy ba xam ñi jiitu ci mairie bu Thiès bi amuñ ci responsabilité. non non on a mais les maires n'ont aucune responsabilité euh, Maodo Awa. ok xam nga li ci xew mooy euh, contre feu la gars yi doon def comme président Diomaye moo ñëw soulever mbir mi. Mhm. ñoom waxuñu li ñu bëgg a gëmloo Sénégalais yi mooy ñëpp a yem. Mhm. ñun ñoom waxuñu jëluñu de joxuñu leen ay hectares. Mhm. mais dañoo bëgg a wax nit ñi nii. président Diomaye mu ngi ñëw di casse ay terrain alors que moom ñi ñi ko ñi mu àndal muy les maires parce que mm-hmm. maires yi ñoom ak président ñoo bokk mm-hmm. coalition mm-hmm. ñoom it jox nañ leen donc finalement ñun ñëpp fa yem or ça ce n'est pas vrai c'est pas vrai ils ont donné à aucun maire intitut personnel amul ce qui s'est passé mooy ñun dañu topp jekki-jekki man si le gouverneur moom woo ni ma mais commune bu Thiès es jox nañ leen cinquante parcelles dans un premier temps sax ils avaient parlé de vingt cinq parcelles pour toute la commune de Thiès Est qui <laughs> fait plus de cent soixante quinze mm-hmm. mm-hmm. mille habitants mille habitants ñu ni jox nañ leen vingt cinq parcelles ma ñëw conseil municipal nous sommes soixante seize conseillers conseillers yu Benno Bokk Yaakaar ñu ngi fa conseillers yu PDS ñu ngi fa conseillers yi Sigi jot na ñu ngi fa conseillers PDS ñu ngi fa conseil ànd soppi Thiès ñu ngi fa mhm. y a tous les conseils municipaux ma jox information yi man leen ni woon nañ ma ni man dañuy jox vingt cinq terrain mais man ko jël parce que vingt cinq terrain soo ko jëlee doo xam ne koy s mhm, mhm. ñu demaat ba jëmi jamono ñu ni léegi yokk nañ ko comme ñun on est nullement concerné par Mbour 4 mënoon nañu bañ a jox sax léegi jox nañ leen cinquante terrain ma ñëwaat devant le même conseil municipal je donne l'information par j'appelle le préfet le préfet en son temps pour plus de transparence pour plus de man ko préfet cinquante terrains je vais pas les prendre parce que su ma ko jëlee yóbbu ko conseil municipal. du ma xam nu ma koy joxee du ci yan critères ma xam association Jakarta yi nga koy jox association des veuves les sportifs. Mm-hmm. sur quels critères on peut pas partager cinquante terrains. mu ni ma kilifa du gedd même bu fekkee ni yow soxla woo ko am na ñenn ñu ko soxla et finalement je suis parti au niveau du conseil municipal ma rendre compte. Mm-hmm. wax leen ni leen lii moo fi nekk. Euh, et sur la base de critères définis par le conseil municipal on a distribué les terrains cinquante terrains et j'en ai pris aucun amoo ci benn boobu moom aucun ma je pars du principe mooy li sëriñ professeur Serigne Mbaye Thiam di wax kuy séddale doo sédd sa bopp j'ai au secrétaire municipal ni ko yow doo ci jël terrain man du ma jël terrain parce que mënuñ terrain yi déjà kenn xamul noo koy séddale mm-hmm. mënu ñu koy séddale ba pare di ci jël jëluma ci sama mbokk amu ci amu ci on l'a partagé et li may wax nii vous pouvez vous êtes journaliste vous faites des investigations vous allez au conseil municipal confondu waa Benno waa Yewee waa Sigi jot na ñoom ñëpp xam nañ terrain yi sur quelle base et la liste est avec moi mm -hmm. seulement il y a des nag yoo xamante ni mes frères surtout dans le groupe Thiès en marche <laughs> qui aiment xam nga une liste bu am ay numéro carte d'identité jàmbur am ay ci loo ko jël di ko di ci di ci def publicité mhm. parce que terrain attribution terrain c'est à titre personnel. Ouais. bu ñu lay attributaire dañu def à monsieur tel vous êtes attributaire d'une parcelle de terrain numéro tant sur le site de Mbourkat vous avez tel délai pour. le problème c'est même pas ces terrains donnés à des particuliers. mais bien sûr bien sûr le reste ce qu'ils en ont fait euh, foofu mooy problème bi et comment faire tey jii nii pour récupérer notre bien maa ko moom yaa ko moom. mais mais le président ci ci ci la nekk. et c'est là où j'appelle les Thiessois yi man. foofu laa leen à dire que maire ville jox nañ ko temps terrain nan la ko def. maire Thiès jox nañ ko ten terrain alors que maire Thiès nee na leen ku bëgg a xam kan lañ jox terrain boo ñëwee maire bu Thiès. Mhm. au secrétariat tu demandes le chef de cabinet. ñu jox la la liste nga lire li ñu mënul mooy def ci publicité. Mhm. man fi ma doon xaar Thiessois yi mooy nit ñi jafe-jafe dëkk yi ñu am Thiessois yi jóg mobiliser wu ni ce qu'il réclame c'est un Thiessois un toit. Mhm. commune de Kër ils ont pris hectares là-bas je ne dis pas parcelles de. parcelles. hectares si on part du principe qu'une parcelle peut faire 450 hectares vous imaginez le nombre de terrains que ça peut faire. c'est un peu comme la nouvelle ville parcelles 30 euh, mais mais commune de Kër vous avez combien de parcelles ils ont remis au maire pour mu séddale commune de Kër Mousso. 25 mhm. parcelles. alors qu'ils leur la ñuy wax au nom de quoi combat bi en ay sénégalais comme ñun. Mhm. ay Thiessois comme ñun ñu mën leen jël deux trois quatre cinq treize voire même cinquante hectares. alors que maire yi nga xam ni maire en temps normal bu ñuy wax suuf maire moo war a maye suuf. Mhm. ñoom ñu jox leen cinquante hectares pour ñuy séddale seen commune muy indi coow. donc foofu la ci combat boobu la ñuy mhm. xaar Thiessois yi je crois que le président Bassirou Diomaye Faye a été extrêmement clair là-dessus. am na ci ñoo xam ne nag ils se sont précipités pour sécuriser li ñu leen jox. jéem ko dem def ay titre foncier le président je me souviens bi ñu nekkee sur le site il a posé la question au directeur du cadastre mm-hmm. ni ko ba xam fii am nañu fi am ay titre foncier le directeur a répondu par l'affirmatif am nañu ko ko fa am mm-hmm. en un temps record le président il est inspecteur des impôts il s'y connaît mm-hmm. il est inspecteur des impôts et des domaines mu ni ko comment fait-il qu'une personne puisse disposer d'un TF sur le site alors qu'il y a aucune loolu déjà rek ça dénote d'une volonté hein, de s'accaparer des terres et de les sécuriser. Mm. Mais le président a dit qu'il ne laissera pas faire et il a donné des instructions fermes. Et nous croyons fermement que sous ce que nous avons dit, nous avons dinañ ko récupérer ku ci nekk li nga jàpp ni war nga ko ci am bu fekkee dafa am ay entreprise ay. parce que am na loo sànq lu am solo. Euh, euh, le particulier qui a besoin d'un terrain bu mu dëkk. garaawul entreprise buy investir pour ëllëg benn projet garaawul mais li bon mooy ñiy dox ci diggante bi accaparer lu bëri di ko jaayaat après ba ki fa dëkk sax du mën a am lu mu ko mu ko lu mu ko jëndee. te te te dañ koy jaayaat xam nga par courtoisie. et par fraternité envers certains Thiessois ñu toog ci ay plateau télévision di tudd ay tur. il y a des noms nag yu circulé mais c'est des fils de Thiès c'est un grand frère ak ñeneen ak ñeneen ak la liste ku ci nekk xam nañ hectares yi. ñu ci biir yi ku ci nekk xam nañ hectares yi. parce que y' a quelqu'un qui est venu ici par par par n'importe qui un ministre de l'urbanisme euh, le ministre sortant Abdoulaye Seydou Sow nee na Idriss Seck on l'a cité dans cette affaire mais tooñ nañ ko on lui a fait un mauvais procès parce que dafa am ñoom indi woon ñoo xam ne ñoom ñoo non Idrissa warul warul bon loolu moom man dama jàpp ni lay la rek parce que document yi président yor euh, ki ñu jox la ñuy mentionné sur le sur le okay. sur le document ama des fois am mbir yoo xam ne bu amee c'est parfois même gênant mhm. nga toog di ci di ci wax parce que ñi ko ñu ko warta def parce que je mhm. crois que Thiès mérité wul loolu c'est vrai kersa nga ci am en fait loolu non Dieu m'est témoin que moi je savais que euh, xamoon naa ni bomb la c'est mhm. une bombe foncière position géographique am la. Thiès moo jeex Dakar jeex lan la. Thiès moo amatul suuf. voilà aujourd'hui beaucoup de Thiessois beaucoup de Dakarois dañuy jaay seen kër ay Médina yu demee noonu. ñëw jënd kër Thiès di xëy di liggéey yi di ñëw di. liggéey oui parce que avec le terre avec euh, l'autoroute même même même Diamniadio les investissements qui ont été faits à Diamniadio ku ne xam na ne suufu Diamniadio bi baaxul gis nañ bâtiment yi li muy mhm, def. Mhm. bâtiment boo fa tabax donc yi day yàqu donc loolu on bu yàgg a Thiès. mais mhm. pour des raisons politiques en son temps. c'est vrai moo taxoon defuñu ko. et puis le site de Mbourkat c'est la nouvelle ville surtout c'est proche de l'aéroport mhm. la position géographique. donc yooyu yëpp on d'accord mais li ñu d'accordul mooy benn nit mën a accaparer wu yenn terres ku ci nekk li nga méngoo ñaar ñetti terrain mhm. c'est raisonnable mais pas des hectares et des hectares quand même loolu la Thiessois di dénoncer et bu président récupérer li ñu bëgg mooy mu def Thiessois bu nekk boo xamante ni bëgg am na y des ouvriers. Mm. des maçons. yoo xam ne dañuy xëy le le matin nekk sous le sous soleil ba ngoon pour am vingt mille francs. parce que trois mooy préoccupation sénégalaise bi en suuf. Mm-hmm. mais du ñu am boo demee dans des pays comme le Maroc. y a des entreprises yoo xam ne ñoom ñooy tabax. tout le monde peut pas avoir cinq cent mètres carrés dëkk ci. mais mm-hmm. on peut faire des immeubles. Mm-hmm. mu nekk des logements sociaux. ku ci war a am construction en profondeur faciliter voilà mm-hmm. les jeunes ñu faciliter leen chaque mois tu verses quelque chose ba keroog muy muy muy mat uh-huh. c'est sur ça qu'on attend le